ma am fukk ak ñent classe pédagogique manam ñi nga xamné ne boobu yor classe ci fukk ak ñent yi huit yi lañ tabax la état bi tabax six abri provisoire ay crainte ay palissade démb nak ci amon dafa amone ngelaw bu am doole bu amone tamba daanal suma abri provisoire daanaka élèves 5e, mëntuñu def cours parce que non seulement la classe est inondée mais abri est dañoo donc euh, te man fixé une samay emploi samay euh, composition ak samay collègues depuis le mois de mai ñu avons début juin à partir du 5 juin dañuy composé malheureusement entre temps le ministre a arrêté la composition de 12 juillet dama xamul pourquoi ils l'ont fait parce qu'il que amul grève cette année il amul une grève de euh, vacances aussi dañoo garton donc il y avait pas de amul won perte de temps ñun ñëpp jàngale donc ñun sori won nañ ci programme presque paré nañ programme dans toutes les classes de la sixième en troisième légui ñu fixer son composition bi ñu ko fixer ñu ne ñu légui il faut ngeen repousser ñu repousser waat mais conséquences yaa ngi ni dem ci guddi euh, dafa amone ngelaw bu fort bu ñëw Tamba yak lepp léegi nag maa ngi xaar collègue yi maa actuellement man donc maa fi nekk euh, école parce que mi ngi mi ngi continuer di taw mais collègues yi bu ñu ñëwee fii ba 10 heures 11 heures dañuy tenir réunion yaakaar naa dinañ rapprocher date composition yi bon à nos risques et périls parce que je sais que bu ko état bi yéegee peut-être dinañ ñu sanctionner mun na nekk aussi sanction positive parce que musiba mun nañu dal fii mais ñun aussi euh, on a des précautions à prendre il faut que ñu aar sunu élèves yi ar sunt, nu s-a mai profesor, ar sunt mai surveant.